waaye nag démb laa lay wax de loolu démb la mais lii xew tey muy ñii nga xam ne ñoo tax ñoom ah bopp sa bopp bopp sa bopp de yaa xam kër gi danga koy tëj góor gi balaa ñëw de demander audience ndax ma ñëw wala bu ma ñëw nekkal la mu ne sam papa de moo doon woote naan ndax mu ne ko non dox bu rendez-vous lundi prochain ñu ne ana yaayam ñu ne ma nga ma ba kii mu nga mu bàyyi kaw diggante Kajoor ak Bawol ak kii maire bi war naa koo seeti de weekend bii di ñëw wala sous peu de temps xam naa war nañ faa dem yow nga nekk fii toog nekk ak soxna si léeg-léeg mu sol ay fiso togg ay ginaar tegal la léegi sa ndey di dundee nëxal cere nëxal waaw wala ak dëxin wala di dundee mbaxal wala moo xam nekk fa nekk ca tool ya nekk ak fas ya ak yëpp yow nga nekk fii Ndakaaru maire bi soo demee ba sentir ko moom nga koy seeti su dee Europe nag amna ño xamne comme niko Sofia Diatta waxe nee amna âge bo xamne suma fa tolloo ku naqari dëkkal lay doon. nee daf may jël yobuma ci kër yoy nga xamne ñom nañu denkane sen papa. muy joy rek am ñu nu yóbbu denkane fa sen yaay muy joy rek te ëmbon la juroom ñenti wër dema dem ba muju nga xëy rek da ko yóbbu ne maison de retraite. dem ci ko fa gisatul ay sëtam xàmmeetul kenn seetatul kenn di vivre dans la misère et la pauvreté soko ko ñëw seet si ko. soo ñëwee wala ak affection bi nday am ci doomam daan la téye di la uuf di la nàmpal mën a góor dara nga dem a dem ba toll foo xam ne mu lëjal la ba nga jël ko génnee ko dem dénkaane ko ci maison de retraite yi ñooñ nañuy roy am na ay maire yoo xam ne ñu ngi ci maison de retraite yi de waaw ñu ngi nu bàyyi Kajoor ñu nu bàyyi leen Bawol. mooy maison de retraite. waaw fii Sénégal. Cheikh Fall c'est un entrepreneur Cheikh Fall bu yaay ànd na daan na toog ba si yàgg yaay an na ca colom faal daal di taxaw daal ne wool leen ma seex booba maa nga colom faal de ñu wax mu banku daal ne su suñuy naan kar seex lu mu jàppoon ci àddina boobu Mercedes la yoroon da koy daal di coupé suy ñëw oto bi da koy duy ba mu fees dell dell dell ëlbatiku ñëw waaye su ne seex bii ren na dugg na ci biir kër gi rek jeex na Uh-huh. maire bi ñokket lay def jóg taxaw barka borom Touba. doom dafa fort. waa colom Fall yëpp seede leen ma lii ma leen wax ci diggante Cheikh Fall ak yaa Anna wala ngeen seede ma lii ma leen wax ci Ami Sakho ak Abdou Kandji nu xool nu seede ma lii ma lex bu ci nekk dama lay duut ne la nii la waaw Ami loo ko def mu ne la ba ab du ku mu mën a doon nag ci kër ga amul ku mu mën a doon ba Abdou ñëw rek la lay wax uh-huh. te Abdou ñëw il ne cherche pas à comprendre moo xam mu mel nii wala ñeme woo ko sax soo ko defee su la fay fekk di la de amu ci sago noonu la mel. ndeysaan waaw moom Ami Sakho waaw. donc bu ñu la déggee en résumé mooy ñi nga xam ne dañoo am dem ba beew. mais mooy am dem a dem ba fàtte sa ndey ginnaaw fàtte sa baay ginnaaw say mbokk mënatunoo jot ci yow dootoo dimbali doomu aadama dootoo dimbali kenn ci këru àdduna te am na ñoo xam ne ak nu mu mën a demee ci këru àdduna du nu fàtte mbokk soo demoon tey. seen ndey nga nu uuf ca kër ga uh-huh. te am na ñoo xam ne mën noo dëkk ak seen uh-huh. am na ñoo xam ne seen ndey nee nañu dafa bari problème génn nañu toxu génn kër yi dem ak seen soxna am ñaari doom ak yooyu maire bi dafa neexut a nekkal te maire bi ni koy def ci suuf yu garaaw di ko tooñ saa suuf ba mu mu jël ko dëj ko ci ci sa ndey soo ñëwee suñu yee sa nopp rek wax la ndax góor ñu bari raar ngay gis ay góor ñoo xam ne am na nu fitu toog ba reer ba pare ba nu tàmbalee lal bi yëlëb lal bi ak kii ñu am fa histoire am fa xuloo ñemewuñ ko bon wax ñemewul loolu dama dem ba ñu yëlëb reer ba pare di ko tàmbalee yëlëb ak dëkk di def ci ànd bi ak di defar ah. di baagantey dama ko ñëw xuloo am ci digg